bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaw bismil ilaahi ci barke bismillahi rahmaani rahim inna iddata shuhuri inda allahi isna asara sahran fi kitaabillah yowma xalaqa alsamawati wal arda minha arbaatun hurum dalika diinul qayim sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne li mu yi fukk la ak ñaar ci biir loolu ci laa bind asamaan ak suuf nee na am na ñeenti weer yoo xam ne xurum lañ muy weeru diggi ak weeru tabaski ak weeru tamxarit waaye nag rajab da caa wéet moom moom la ñu woowee rajabul fardi ñeenti weer yooyu bu masaan am li ñuy wooyee hudd na mooy am cessez le mooy arrêt de guerre kenn dootul guerre yéen sa sala dañ ko ko tere kon weer la woo xam ne loolu rek may na ko ngëneel weer yépp am ak cellaa nga waaye nag weer wi ñuy woowee rajab da caa raw ndax li nga xam ne mooy kennul diine ci la wàcc muy assalaa asalaatu imaadu diin ndax ci la yonente saa sallam rañaawoon woon mooy al isra muy isra mooy dem gi mu jógee woon màkk dem ba Jérusalem miraaj mooy jàdd gi mu jàddee woon ko wuti ci boromam ba mu àggee la ko jox juróom fukki julli juróom fukki julli yooyu ñu koy wàññilu ba mu des juróom léegi nag bis boobu yi di yowmul jumaa ci daaru salaam ni bis ni ki tey di kazu rajabin ci la sëñ Fallou Mbacke feeñ sëñ Fallou Mbacke moomu taxul sëñ Moussa Ka doo wax naan bannoo balla nu joomun biddiw saful weer sëriñ Fadilou mooy weer wi leen di jox leer kon loolu rek déggee nañ ci ne sëñ Fallou amul moroom moo waxal boppam it ne yonent bi dana lay mën a cëpp te bi mu ci feeñee ci bis boobu sëriñ Fallou dafa yendoo koor ba ngoon dogul te wax nañ ne fukki fan ñett ci rajab ci lañ ko jébbal caabi jumaay Tuubaa nga xam ne sëñ Fallou moo rajab daal taxoo nañ taxoo goo xam ne doy na waar te it bu fekkente ne sëriñ Fallou julli daa wàcc ci weeru rajab mu defaral sëñ Touba jumaa ju toll jii mu ko defaral kon sëñ Fallou mel ni diine moom feeñ gi mu feeñ ci rajab bokk na ci li tax mu feeñ ci sàmmloo gi ko sëriñ Touba sëñ Touba di sàmmloo diine loolu bokk na ndax danoo wax ni sëñ Fallou bi jamono jafee daa bind ab lettre sëñ bi bi mu bindee lettre sëñ bi ñu demaat ba jimmi jamono mu bindaat beneen lettre sëñ bi sëñ bi na bu ngeen demee nee leen ko lettre yi muy bind ma fàttali boppam na ko bàyyi. ñu dem ba mu yàgg sëñ Fallou jëfi ndigal li tax mu jël sàkkawtu umuur yi wa san bil azim li rabbil xadiril xafur rahim yónnee ko sëñ bi ndax sëñ bi moo doon jàmbat yàlla foofu ay mbiram naan ko yàlla samay mbir nii la demee nii la demee. sëñ sëñ ba mu xoolee sàkkawtu xam ne sëñ Fallou ko jëfee na ndigal mooy bindul leetar waaye indil na ma mbind moo xam ne maa ko bindoon sëñ bi daal di ree daal di bind bikal yow ma akmaltu xasida la ko xam fukki ñaar ci lay toll mu jébbal ko sëriñ Fallou sëñ Fallou xool ko mu yàgg mu ne ah, man lii xawma ci dara affaire xoolal waay sëñ affaire ñang mi mu bokkal ndey te bokkuñu bàyyi te doon tam doon magam ci saayir sëñ affaire ñang daal di xool ba mu ba mu yàgg mu ne ko may de ma ci dara waaye yow jàppal na sëñ Tuubaa defal na ci loo xam ne daal boo liggéey bu sottee ñëpp dinañ ko xam bi biñ demee ba ba sëñ Modou Sow nekk fii def fi njàmbaar gi mu fi def taxawu fi jumaa ji taxaw indi raay bi def fi njàmbaar goo xam ne ku ne kenn ñëpp mën nañ koo seere ñu dem ba jëmmi jamono sëñ falu nekk fi ràmm dem rafle dem lépp xéew lépp ñëw sëñ affaire daal di jël xasida gi woo benn waaye ne ko jàng ko ba mu te bu mokkee nga wax ma ko waa jàng ko bu mokk mu ne ko day bàyyi ba Sëñ Fallu toog di siyaare nga dem jàng ko ci wetam bi kooku ñëwee di ko jàng ba mu yàgg rek Sëñ Fallu téye siyaar bi di déglu waa ba xës digi ko yow mu ne ko waaw yow di gis nga ne ko waaw gis sëñ affaire ñangi day ma ko jox mu ne ko waaw waaw Sëñ Fallu daal daanu ndeke Sëñ Tuubaa di ko bëggoon wax ne ko naqar weeg tiis weeg li jamonoy jafe lépp danañ dem ba li ma bëgg ci àdduna yaa ma koy defal muy sama jumaa jaama koy mottali bi kal yow ma ak akmal comme ni yàlla waxee woon na al yow ma akmaltu lakum ko sëñ Fallou moom yi nag moo sowee jaam ñëpp ndax moo taxaw ci kanam yàlla ne li xayrika la nasku illa halwara amra wa ma in lana illa ilayka tija dara yàlla na ko looy jàmbat ndax daa ñëw gaa mel da ngaa ñëw sukk sama kan bi jàmbat mu ne ko waa mbir yi dafa tiis ci nit ñi te bëgg naa ñëpp nga dimbali ne ndax amuñu wéeruwaay bu dul yow suñ borom na ko jàmbala jàmbatal mu ne ko fa min mustakin faqran wa min mustakin balaa wa min mustakin daynan wa saa minhu moo ahraab kii day ak ñàkk lay lay lay lay jàmbat kii di jàmbat balaa kii di jàmbat bor sëñ Fallou ne ko nag borom bor bi laa bëgg nga njëkk koo lijjanti ndax ki amee bor am na balaa am nag ñàkk borom balaa balaam balaam rek la borom ñàkk ñàkkam rek la waaye borom bor nag moo yore lépp sëñ Fallou Mbàkke moom yi nag. dafay nekkoon di liggéeyal Serigne Touba xilaafa gi ne ci loxoom mu nekk ci amiin li ñaan amiinu sirri yi secret Serigne Touba yëpp mu téye ko waaye bi mu ko téyee tasaarewu ci dara bu dee saayiri Serigne tubaay tasaarewu ci dara euh, Serigne Saliou Mbacké mas nay wax ni Serigne Fallou lay bi mu fi nekkee ci ñun la nekkoon bàyyi ay doomam. moo tax bi mu laajtee ay doomam moom Serigne Saliou ba xam nu ay doomam demee ñu ne ko ah, Mbàkke am nañu tawféex mu ne xamoon naan loolu du mën a ñàkk ndax seen bàyyi baa ko liggéey ndax ci ñun rek la newoon di ñu toppatoo ay doomam bu ñu masaan wax mën leen cere bàyyi jàmbur duma ko xotte sama doom Sëñ Fallu loolu la fi nekk woon Sëñ Fallu moom ku ko gën a maanu ku ko gën a bëgg Sëñ Tuubaa amut ki xam ki nga xam daa dem ba mu yàgg mu ne jooy ngir bëgg Sëñ Tuubaa farata la saf ko dumooy li hubbil xadimi fardan araahu sot samay rongo ngir bëgg sëriñ tubaa sëñ Fallu nee na moom man rong rongo jooju may sotti moom ma dem jàkkee julli ji laa yemale ndax sëñ Tuubaa cofeel ci ci moom noonu la toll ndax yàlla teg sëriñ Tuubaa fu ko kenn mu sa teg moo tax ku ko sopp yàlla nga sopp te yàlla rek moo fi wàcc farata tey sëñ Fallu Mbàkke nag mu ngoog jaxasoog doomi sëriñ Tuubaa yi nag bëgg leen mas naa dem tiib fekk fa sëñ Basiiru ba mu agsee sëñ Basiiru dana saaral xabibu fa marhaban ahlan bihi min sayidin nat bin huma min naa bihi am na benn sang bu ñëw siyaare si ma de soppe bu ñëw siyaare si ma waaye maa ngi koy wax ne ko yaatul fii dalal jàmm sang la boo xam ne ab soppe la buur fëri la sëñ Tuubaa sëñ sa sëñ Fàllu ku yàkkati ko dara yuharriku bil muazzami ma bihi bul ma tàggu mukk ndax boo ma tàggoo danaa mel ni ku dugal sawar di ko bëggal ndax yow sa ndax yow koo gànna di ko tàggu sëñ sëñ Fallou daal jël xëy na surtout xabiba nat ba yaa ajabat bii min sayidin turfil ofaatu bi baabihi mustamtirina nawaaluhu wa nawaaluhu kal xaysi min baxdin jila siaabihi maa an ubaali aasilan fi hubbihi innal mutayyama xad ma ne ko sëñ Fallou ko man damaa siyaare may soppi bu soppi boo xam ne ab sang la kii maanaam ci moom ndax sang la boo ne boo demee da ngay fekk ñi di wut si lu ñam ñuy ay mayam te mayam ni taw ginnaaw bu niir yu wuñ wuññee ba kenn defee lu taw neen ci lay taw daal ne nag bëgg gii ma bëgg sëñ Basiiru sëñ Fallu ne ku ma ci yedd ba ko yedd ba ci ndax aw ma ci sago moom noonu la meloon noonu la meloon ci al aalamul islaami yi màggal na ko doo ko laaxu danoo wax ni euh, wax naa ko barki dem ne naa ñaari màggal lañ fi gis yoo xam ne borom màggal na ko digle ko doo ko dem muy màggal bu mag gi sëñ Tuubaa ko digle ko doo ko dem asalaamaaleykum wa rahmatulah bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàlla bismil